révision exceptionnelle bi jàpp nañ ne délai biñ ko jox dafa gàtt ci weer lañu may ñit ñi ñu dem inscrire ci liste électorale yi jàpp nañ ne lu gàtt la lu ñu mën a corriger la ndax présidentiel bi passé muy bu 2019 euh, ñi doon dem di inscrire amoon nañ au moins ñaari weer donc tey jii euh, gisuñu lu war a mën a tax ba inscription yi sur le listes électorales muy période de révision bi warul mëna nek ñaari weer parce que 2019 suñu dem élection présidentielle ñaari weer la won war nañ ko mëna def ñaari weer maintenant décret bi génn na ba paré duñu wax ñu soppi décret bi mais li ñuy demander moy bu weer bi nga xam mom moom la décret bi joxé jéxé mu am benen décret bu ñëw proroger ko manam yok ci benen weer pour mu permettre ñi nga xamante ñoo war a inscrire ci liste électorale yi surtout ñi nga xam ne dinañu am 18 ans ci bësum élection yi mu ñi ooy les primo votants ñi nga xam ne dañuy voter pour la première fois mën a am jot ak temps bu doy pour mën a inscrire ci liste électorale yi ak ñi nga xamante ne ñu war a changer adresse ak ñi nga xamante ne également dañu nekkoon euh, militaire wala leneen te war a mën a léegi changer statut ñu wax bu jëkk mooy ñaan nguur gi mu yokk période de révision bi bu décret bi nga xamante ne nii jeexee mu def beneen décret pour yokkaat ci beneen weer pour que le maximum de sénégalais mën a bokk ci élection yi muy participation bu am doole.